xarit euh, madame Gay. madame Gaynek nak tay mbok recevoir ku nga xamantene bi ah, artiste plasticienne la formation ba mu def noir yi astrophysicienne euh, dinañ présenter dans quelques instants vraiment euh, li nga bi koy yi ci am solo lool bu ñu ci référence ci Malcolm Malcolm jëlee ay jeunes dañ ci gëna sawar parce que ay jeunes entrepreneur ki nek ci suñu plateau bi nak mbokk yi ah euh, mom daal électrotechnicien la bu ci kanamee danañu xuus bu baaxa baax ci li nga xamante bi mbokk yi moom lay liggé ñu jéxal émission bi nak sa su ne xam ngeen ko ak li nga xamante bi mom moy tagat yaram suñu xarit Moustapha Sadio dana rejoindre suñu plateau dans quelques instants ñu jéxal ak vue sur la toile waaye nak xam ngeen émission bi du mën na baax te duñu and ak ay invité ma ci jiital nak Madame Caroline Gay di artiste plasticienne maa koy wax euh, euh, vraiment astrophysicienne euh, de formation waaye tamit ñi ngi koy am plateaux, sur ci suñu plateau suñu référence su tey ñu duppee ko monsieur Boubacar Sarr Diop di électrotechnicien madame Régie dellu Siwat.

et c'est vrai parce que mhm. tay ki ñu indil <laughs> choisir na nam mhm. nek artiste plasticienne mhm. waaye nak formation dafa xawa doy war mais ma am yaakaar ne ca la nga xamante ne bi la formé wu fay am njëriñ lool ca lu muy def actuellement maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay yaa xam mm-hmm. euh, di nuyu téléspectateurs yi am mbégte euh, si plateau bi di nuyu Malcolm ak euh, suñu invité ni nga ko waxee nag formation bi nga xam ne moom la def. Mm-hmm. dana am jeexital bu baax ci liggéeyam et je mm-hmm. pense que élément bi bu ñëwee di nga ko seetlu sax. ci biir reportage bi. très très bien en tout cas may mun na dañuy kontaan saa su ne parce que nag sunu mbaax la ñu may di indil si bés bi mbokk yi dañuy kontaan it encore une fois ci sunu xarit Malcolm parce que nag mbokk yi Malcolm référence ñuy indi dañ ko soxlo muy goor di jigen di mag di ndaw ñu nga xamante bi war nañu mëna roy ci ñom muy ay entrepreneur en tout cas euh, ñi ngi lay nuyu Malcolm c'est toujours un énorme plaisir pour nous euh, de te recevoir te di kontaan nak parce que sa su ne yaa ngi gëstu fu ne ci Sénégal da nga fa dem and ak équipe bu RTS2 indi ñu ay référence parce que fi adina toll Malcolm dañ ko soxlo dëgg la euh, fay naa la sama Valentine. Uh-huh. <laughs> di fay suñu invité <laughs> yi mais maa ngi nuyu maama parce que bëgguma mu mer. <laughs> def nga lu nice donc maa ngi maa ngi nuyu tamit may mëna a. Euh, di nuyu ñi nga xam ne safoon nañ di seetaan suñu plateau. di leen wax ni référence tey indaat si na beneen référence mu nekk jeune. Mm-hmm. mais incha allah pare wuñu parce que bëgg nañ dugg ci bërëb yi gën a fasantikoo. Mm-hmm. indi leen loo xam ne duñ ne mosoo leen ko gis waaye gaar na moon ngeen ko. très très noonu daal laa nuyoo. donc euh, on te retrouve dans quelques instants. mbokk yi nag ñuy sant di gërëm saa su ne képp ku nga xamante ne bi yaa ngi participer ci émission tam tam ñi fi mos a jaar di nu seetaan ñoo ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax waaye nag ñu kontaan tey di fego ak madame Caroline Guèye mi nga xamantene bi artiste plasticienne la maa ngi koy wax sank waye astrophysicienne de formation euh, Caroline maa ngi lay nuyu di contane vraiment ci sa teewaay fi ci émission tam tam. Euh, maa nuyu. kontaan mhm. euh, naa trop euh, mhm. nekk émission tam tam. Mhm. ak yéen très très bien en tout cas <laughs> ñun tam contents parce que nag wax dëgg yàlla nit boo ko gisee gis bëñ yi mm. day dal. <laughs> <laughs> bienvenue en tout cas. merci beaucoup waaye tamit ñuy dalal jamm ko nga xamante bi momi tamit moy mooy sunu référence tay tey monsieur Boubacar Sarr Diop électrotechnicien Boubacar ñoo ngi lay nuyu di la dalal jamm yow tamit kontaan nañ ci sa téway fi ci émission tam tam. maa leen di fay bu baax man tamit maa leen gën a kontaan quoi mhm. parce que nekk fii nii moom mhm. euh, mën nañu wax ni contentement mënu ko waas mënu ko passé quoi. kontaan naa trop merci jërëjëf ñun tamit content nañ ci sa teewaay mbokk yi mm. yéen itam ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ñu ñëw ak yéen ci agriculture ànd ci ak suñu xarit euh, madame Guèye Maymouna Sy euh, comme ni ñu ko waxee woon rek te nag diggee bor la daf ñu diggoon ne euh, incha allah dinañu xuus bu baax a baax ci jigéen ñi parce que ñu ngi toujours ci mois de mars may baamtuwaat ne ñu ngi leen di souhaiter encore une fois une très bonne fête vous les femmes donc tey sànq ñoo ngi koy wax ñu ngi recevoir ku nga xamante ne bi mi ngi bay waaram ci art et culture peinture ñu ko Caroline Gueye muy euh, artiste visuelle Caroline gay donc nous proposer une euh, exposition bi nga xamante bi lutte contre le pillage de nos poissons ah ok, amna solo parce que nak wax deug yalla euh, fiñu ñu toll nii cher leg leg nak nga gis artistes yi qui ci ay thèmes yu nga xamante ne toucher directement les populations mbokk yi ñu dem xol exposition boobule dellu si ayoo ay mu dem bi mul ba jaaxle grand gañ may koy géej dafa aw danoo fanaane napp ba fajar dara di metti na ayoo ay mu dem bi mul ba jaaxle yo ayusemki mol bejaxle ma li tubaab di bëgg a géej yëpp géej géej fer su feree mu gis lu mu sab mbaa lu mu ragal ndeysaan sama baat su neexoon ma way tey mbooloo mbooloo naka la Youssou Ndour ñu ngi lay nuyu waay parce que woy na lépp macha <laughs> allah ah, ñu koy nuyu bu baax a baax <laughs> euh, kon nag may mu nekk exposition bu nga xamante ne bi <laughs> mhm. macha allah kontaan naa torop ci image parce que mhm. may xam nga sànq maa ngi koy wax mhm. c'est-à-dire formation ba mu def ñoo ngi koy seen ci li nga xamante ne moom mu ngi liggéey waaye may gis nañ fi ay mbir yoo xam ne faaw ngeen expliquer ñu ko parce que yooyu di yëngatu noonu faaw ñu wax nu parce que c'est vrai que nag ñi nga xamante ne bi mooy mool yi kii dañu yore ay mbaal waaye moom mbaal mi nga xamante ne bi def na ko exposé ko mhm. dafa am feneen fu mu fële Eh, nga may ma rek ma sagal eh, cameraman bima andalon ma mhm. eh, sayer Massaer mom mhm. moom ñu indil image yu rafet yi sargalaale ci ndey ana mhm. madame Mahfouz Diop mois de mars bi yep mom chaque jour dañ koy tuddu sargal ko ndax moy suñu caméra wu man voilà ak yenen technicien yi jigen yi fi nek yep ñu ko waxe nak waaw am sa tu réalisatrice Ami Collé voilà donc kulim rek da nga joom ñu leen di nuyu wala di leen sargal ci wéru mars bi ni nga waxe nak ñu ci dox rek di indi jigen yi nga xamantene dañ leen wara woné Si vous avez impressionnant tu imagines. yi. Mhm. Euh, élastique là ah oui wow Et pourquoi le choix des élastiques Bon, de me jolonne euh, élastique, mm installation Bobo amène environ 6000 élastiques. Moi, je me 6000 élastiques. Voilà, voilà. Faut Et... être patient, hein Oui très patient. C'est ah vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour des installations bobo. Mhm. Et en fait, l'Anla et Khalat, moi, c'est parce que comme euh, bon, physicienne là, mhm. hein, même si maintenant euh, artiste à temps plein là, mais Belegi mhm. m'a intéressée chez euh, sujet de recherche astrophysique, de physique des particules, etc. Comme de me donne intéressé chez théorie des cordes. Théorie des cordes, de fait, pour faire simple, de fait expliquer que euh, enfin de faire euh, trouver un ben type de physique qui mun appliquer monde microscopique mhm. et le monde macroscopique ah macroscopique donc nga physique mhm. <laughs> c'est-à-dire moi je suis passionné c'est très intéressant c'est pour cela que là je me noie dans non ngi euh, voilà et donc en fait de wax pour avoir des ben type de physique qui mun expliquer monde appliquer macroscopique et microscopique mhm. il faut que nous ayons une dimension bu d'au parce que y avons ñu macroscopique et microscopique. Ah, macroscopique tout ce qui est très grand voilà infiniment mhm. grand. Mhm. microscopique infiniment petit. très bien voilà donc microscopique c'est tout ce qui est mécanique quantique et puis euh, macroscopique relativité générale. et donc. Euh, Sunyu Ame Ben euh, Dimension bou Down Down Down. Ça s'appelle corde. Mhm. En fait, Dimension bobou, c'est un objet unidimensionnel et de feu neuro élastique. Le lumotar khalat élastique. Après, de cette euh, texture élastique, comme de feu noy et tout, Mouna mouvement bobou. Mhm. D'accord. Et, euh, et Tamit de Maïdef à jeu de lumière. Parce que ce mouvement élastique yo à jeu de lumière, d'un khalat. Euh, euh, océan, mhm. mer, des oscillations, Gatsby, de faire mmh. Amkouisset, euh, bande de poisson, de faire Amkouisset, aïe méduse, à faire Yoyou, ko exposition. Euh, très très bien euh, Ma question yi bëri na. waaye damay jox parce que am na tamit ben électricien boo xamante ne bi day yëngu tamit ci ay mirum lumière. Mhm. mi ngi tudd léegi mirum lumière yow naka nga gisee vraiment exposition bi nga xamante bi installation bi nga xam proposer proposé hmm, c'est vraiment joli bi qui gisee élément bi man dama si gis ça, ah, ah. <laughs> parce que ben instant tamit man moom moom laa gën bëgg ci courant lumière. d'accord lumière laa ne bouge bëgg ci courant bañ naa ko sax ba. Euh, Malcolm mi ngi koy wax sànq. Mhm. suñu nek sax sofu fa duggee. Mhm. papa Texas la koy woowee. <laughs> parce que ça soo bëri lumière. <laughs> Ah. c'est que euh, dafa doon affaire bo xamné ne comme euh, mun nañ ci mun nañ ci defar leneen mun na doon leneen ak leneen comme projection fausse fenêtre. Mhm. gars yi koy commencer def fini nii. d' jamono da ngay ñew rek jël lampe tal mu tax mais légui idée yi bëri na idées bari na lumière yu bëri na tableau yaa ngi fii. très très bien et surtout nak mm-hmm. artistes yi tamit ñu ngi wéy diko diko def ci li nga xamantene bi ñom lañuy ñuy liggéey. Mm-hmm. alors may mm-hmm. euh, mu nek aussi ben titre expo bo xamantene ne bi faaw aussi mu faram ni ko. voilà donc euh, expo bi moom mu ko tuddee SOS e pot Pa manam c'est en lien ak pêche bu ñu pêche moy nap ndax dafa seetlu né ñu ngi euh, jeexal suñu géej wax yi ak géej yi daanaka léegi amatul dara mhm. léegi nag ci la inspiré wu moom organiser exposition bi nga xam ne mu ngi ko doon def fii ci Dakar mhm. euh, peut-être Caroline ñu bàyyi la rek nga ñëwaat ak ñun euh, ci titre expo bi ak surtout euh, lan nga bëgg a wane ci exposition bi je rappelle juste au passage que ne am na plus de 34 œuvres boo xam ne dafa boole sculpture boole dessin boole tamit li nga xamante ne mooy installation gis nañ ci image yi loolu lépp macha allah moom moo ko def moom moo ko def moo def scénographie bi moo def installation bi moo inventel waaw mooy physique bu mu ne rek. bon allez <laughs> voilà. waaw comme titre exposition mooy SOS pas mhm. ou SOS pillage organisé. Euh, des poissons africains. D'accord. Luther me donne eh, C'est vrai. Waouh, waouh, mhm. waouh. Mhm. Luther me donne, me le sujet thème Bobou C'est parce que de dégonne à information et tout. Et puis de faire Amon ben au sujet, chi ben euh, bateau étranger, kunekonchi, ce new gage, je ce new gen. Donc là illégalement, en mhm. fait. Et donc de me commencer Khalat et tout, et puis développer Telmbi, et puis de me Khalat Nyunfi, euh, ce new plan national, John Monek Chibir, Chebujen. Beparé, Nyun, 14-15 millions d'habitants, de New 28 euh, kg de poissons par habitant mhm. par an. Mhm de C'est énorme, 28 hein, kg. énorme. Oui, et de fait, 1,6 million euh, de personnes qui dépendent directement de la pêche. D'accord. Et, du coup, si jamais nos, nos poissons nous laissent reproduire, etc., mhm. nos poissons coup déjà des naines, elles sont exterminées, et de jeunes en voie d'extinction mhm. aussi. Mhm. Comme c'est maintenant, il faut que nous âmes conscience, etc., mhm. pour, pour, pour nous bannir. Euh, à plus tard, etc. Et t'as de fait répercussions répercussion de population. Parce Absolument. Que, de, de, etc. Il faut que, que, que que mhm. nous qui ayons la mer, au moins puissions profiter de nos ressources halieutiques. Absolument. Alors Malcolm, nous euh, euh, mhm. baillons parce que tu as ça que vous avez moi, moi, moi, moi, <laughs> moi, moi, moi, ben, c'est toi alors, vas-y. Euh, j'ai un ami, c'est un scientifique, il a tellement, d'abord, xalaat boobu mujj sew ñu koy Chalki calki comme ku ça. <laughs> alors dañ nous waxtaan benn jour ci solution pour les poissons qui sont en voie de disparition Mon mhm. au Sénégal dafa gis ne dafa bëri ay parking yoo xamante ni si oto

moy ñu out ay c'est-à-dire période yo kenn du mhm. ñi nga si yor sécurité bi ci bi ñu sévère mhm. parce que am wax mhm. troisième bi koy sérieusement dañ ngir di ngir reproduire et je pense qu'avec ça bu ñu bi leen ñu reproduire je pense qu'après après solution très très bien bah, voilà <laughs> ay solution en tout cas may ñu ñëw une ci euh, parce que comme ko yu ah hein? am na ay tableau yu mu def sculpture mhm. installation mhm. ñu ñëw ci liggéey bi waaw am sculpture am installation am tamit euh, li nga xamante ne dessin mhm. ma bëggoon ñu taxaw si tuuti rek gis nañ ci biir reportage bi benn portrait pour Nelson Mandela amaana xëy na ku ko gis yaakaar photo la mais c'est fait à la main avec du crayon noir. Non. Mais, mais, mais je demande au réalisateur Mouanouat Moko si c'est possible. <laughs> C'est vrai Oui, c'est vrai, oui? Et puis, moi, je un lien avec Mandela. Euh, nous avons un peu si, si euh, dessin et avec Mandela, nous l'avons topé. Non, Wow. Uh-huh. Alors, euh, Mandela, vraiment, à chaque fois, ma exposition de Mboug euh, Mouam aussi, euh, portrait de Mandela, parce que vraiment, de mes âmes respect Boumac, ouais. parce que vraiment, il y des faits, etc. Mm-hmm. Voilà, voilà. Et puis, des fois, on a porté à Loubari, Bari, ah, vraiment. Mm-hmm. Voilà, voilà, comme de, de mes euh, respect Boumac, Chimom, de mm -hmm. mon ex, exposition. Mm-hmm. Alors, maintenant, pour euh, ce qui est des portraits, euh, au crayon à papier, d'où photo, en, en fait, en fait, Bemen et j'ai toujours dessiné de me bouge à dessin à peinture et tout tu sais me bien de à dessin de ma taille déjà etc vrai oui, à, oui, à quel âge déjà toute petite j'ai commencé très tôt très tôt j'ai commencé vraiment à créer etc mhm. et puis euh, donc ce, de, de, me, de donner l'âge de me est-ce que mon dessiner tu sais me bien mûr euh, tu sais mais bien avec mon émewa, d'accord, mais ne t'avise pas de faire ça <laughs> dans d'autres pièces de la maison. Je dis ok, deal, c'est bon. Et, euh, et donc en fait, euh, à l'âge de 12-13 ans, oui. j'ai pris un magazine là à la maison et puis j'ai reproduit le visage d'une pub pour un parfum. Et, et je ah. me suis aperçue que c'était pareil que le visage de la pub. Et en fait, euh, c'est à partir de là que j'ai su que j'avais ce, cette que j'arrivais en fait à faire des portraits réalistes alors, que que j'ai jamais appris. Alors moi, je, veux bien savoir parce que commencer un dessin, bobu yaangi tout temps. Voilà. Mais après, tu lan mo la formation en nga def euh, euh, astro physique. Alors c'est parce que en classe de 4e de New Hampshire, premier cours de, de physique. Wow. J'ai adoré la physique. Pourtant, mon prof était strict, il me donnait plein de devoirs et tout, de me bouger physique. Mhm. après le <laughs> moment, du bac, il faut que nous choisissions une étude supérieure. Oui, mhm. fait. de me donne hésiter entre art et science, entre faire une école d'art ou bien faire de la science. Et en fait, euh, à ce moment-là, j'ai choisi de faire euh, de la physique, mais j'ai toujours continué à produire. Très bien. loup Motard, de me donne hésiter depuis, depuis euh, période du bac en fait. D'accord donc fan nga ce ci euh, euh, li nga en fait ci ban degré euh, en physique. Oui. Alors j'ai un master en astrophysique et ensuite je me suis spécialisée en physique atmosphérique, radio, protection et sûreté nucléaire. Je suis ingénieure dans le domaine. D'accord. Après, tu as choisi d'être artiste voilà macha <laughs> on va terminer. juste pour terminer peut-être qu'il faut que nous environnement bi faut la la mhm. jouer euh, mhm. sa maman est journaliste Véronique Ayi. Bioron Ava Presse euh, nit ñi xam nañ ko boromi Véronique Ayi doomu Paul Ayi Paul Ayi nak c'est un artiste africain certains le considèrent comme le Picasso africain. Bah, voilà voilà tout ce qu'on <laughs> voilà donc pour ne pas faire de la publicité. Mhm. Euh, BCAO, e boo a am ay œuvres yu gigantesques yu fa nek ak ay mhm. Paul Ayi moko def Paul Ayi bobu moy mamam xamna lolu mo Non déteindre ci carrière euh, ba paré mu juste pour boucler boucler elle a des origines aussi. Saloum. Saalum. waaw <laughs> donc euh, papam artiste la tamit As Gueye ni ñi xam nañ ko. très très bien artiste dans l'âme. alors alors ñu bàyyi la nga nga teunk parce que ñi ngi waaj jéxal chronique bi donc ya ngi exposer, xëy nga ñëw ci lieu bi ngay exposer, ce n'est pas faire de la publicité parce que de toutes les façons l'entrée est gratuite. Mhm. Euh ñu xam et puis voilà euh, nga nga am loo tëjee daal. Mhm. Euh, le TG, ça veut dire <laughs> clôturer. clôturer. <laughs> Ouais. Euh, bon, euh, <laughs> je vais clôturer en disant que je, moi, je crois beaucoup au travail. Hein, et que... Non, ça rien je crois. par exemple là de passer de physique à art, etc., de femmes, Mohamni de Fey, Khalat à artiste et tout, de Feyombe et tout. Bon, quand mhm. me proyen un artiste, mais man, je sais que de mes ligues, il oublie, d'où me, d'où me, d'où et tout, voilà, vraiment de mes ligues. Mhm. D'accord. Mhm. Voilà, que elle est sélectionnée aussi pour la biennale. Oui, voilà. Très bien. Les fan nga exposé pour nous nous dem des sa installation ak sa ay produits et puis en plus da a def sculpture. Oui, de may def murales, sculpture murale, amona mm, ben tapisserie, tamit. D'accord. Waouh euh, Espace VEMA, c'est euh, près de l'embarcadère de Gorée. D'accord. Euh, c'est un espace vraiment magnifique. Et puis de mes âmes... Ah, Bakani ba bah, bah, léegi léegi yaa hein, il faut ngay dem léegi il faut ñu dem léegi léegi waaw comme comme ni mu ko waxee il faut ñu dem léegi léegi en tout cas May ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a c'est c'est un plaisir à chaque fois ñu ngi ñuy indil surtout nag ci mois de mars bi waaye Caroline mm-hmm. dañuy content. parce que nag vraiment xam nga ne fii nga bokk naam peut-être wax ji leerul waaye ñuy sétal ak ñun ñi dégg nañ bu baax li nga wax tax mm-hmm. xamna né wolof bi machallah ya yaa ngi ci gën a mm-hmm. en tout cas on te félicite euh, parce que ce thème bi dafa am solo exposition bi amna solo parce que ku ko gis xamné amna ben recherche amna na un côté scientifique bu nga xamante ne bi ñoo ko ci gis en tout cas bonne continuation et félicitations merci Merci euh, beaucoup Caroline mbokk yi may fàttali nag euh, suñu invité ci agriculture madame Caroline Gay, nek artiste plasticienne waaye nag formation si astrophysicienne la mbokk yi nu xuus ci émission

teraanga doomu aadama liggéey doomu moo ko mën a joxe. nañu wax ni moitié bi don la moitié bi lu ñu jàng la quoi parce que euh, da dugg naa école dem ba classe troisième après ma bàyyi jàng ma bàyyi jàng nag choisir ni damay def électricité. njëkk dem école ma def formation 4 ans def B CAP def BEP par la suite ma la formation bi delluwaat chantier dafa doon métier boo xam dama ko bëgg du bientôt je def 6 ans 17 janvier prochain je def 6 ans mais lépp dafa doon loo Je ne tamit dama nekk xale nekk 6 mois chantier bi ñu commencé ma responsabiliser quoi di ma jox ay œuvre yu mag may liggéey su ma je ñu décalé ma ne ma non da nga juum lii at lii at lii ngay def c'est que je naa wax ni tamit. Euh,

Euh, énergie renouvelable dañuy def électricité dañuy def groupe électrogène Nous sommes ci xam quoi actuellement nous sommes ngi train de virer ci affaire événementielle quoi décoration cérémonie réception euh, lépp lépp loo de lumière la ñu ngi koy de ngi

kii bu màggee moom itamit mi ngi woon ci théâtre bi ñu ne danga yore micro. <laughs> est-ce que taw di téye micro bi nga nekk. Euh, man xawoon naa def genre yooyu. Euh. voilà en tout cas Malcom ñu ngi lay remercier ci référence ba nga nu indil tey. Mm. parce que nag su suñu gisee ndaw. boo xamante ne bi am na fulla am na mm. jom di def. ci mm-hmm. parce que toujours effectivement alors euh, suñu référence tay li tax mu am solo parce que dañ mm-hmm. système am Sénégal légui mm-hmm. système LMD lutte musique danse donc lui il fait partie des jeunes qui ont dit non li mu gëm passion mais boko fait ci bi souvent da ngay ni surga bu alors que mom lañu jox chantier bu mag bi xam doudon don dafa bok ci liguey bu mag alors mom commencé won na di def ben formation mais mu dem ba ci biir ñi mu doon defal formation mom mu ëpp leen niveau ki nga xam moko jité ko jiite ne léegi na ko mu wëyel euh, li nga xam mo moo nekk liggéey bi di ko commencé jox ay chantier mm-hmm. mais avant may sori ci loolu j'aimerais bien que nga wax ma lan mo nekk différence c'est-à-dire li nga yëngu nu mu tuddu yan ponk ñoo nekk ci biir rek nga détaillé ñu ko mm-hmm. euh, salaamaaleykum may nuyu wat encore une fois waaw euh, li ñuy liggéey comme électrotechnique la ñuy wax quoi. Mhm. parce que su ñu waxee électricité rek day dépendre ci comme courant euh, mhm. boo xam ne moom la ñu utiliser domotique comme industriel. Mhm. mais électrotechnique dafa laaj dafa laalaale technologie quoi. ñun dañuy liggéey euh, énergie électrique.

mais actuellement gis na sànq des faux plafonds et cetera. Mm-hmm. alors est-ce que mën nga ñu expliquer ce genre yan décoration nan nga koy liggéey ak yu démé non pour que ñi seetaan tam ñu gëna xam ban patch nga gëna mëna mën a liggéey pour liggéey euh, ci ban patch nga gëna nek euh, actuellement ni maa ngi si décoration bi la gëna fété ci déco ci décoration bi la gën a féetee. Hein? Mhm. des des décorations événementielles plutôt. Mhm. dañuy defaale tamit euh, ay tableau tableau tableau décoration comme des fausses fenêtres. Mhm. Euh, ok des fausses fenêtres da ngay tok mais da ngay da ngay foog ni yow li ngay jakarlo fenêtre la fekk ni tableau la. parce que éclairage bi day génn si biti at papier. fin bi va dañ koy décorer quoi. parce que idée la bo xamné tuba bi biñ ko dalee utiliser li moom naa ni yàgg na yàggul mais fii nii war nañ ko mën a utiliser gars yi ñu ngi koy commencé def malgré que quelques restaurants ñu décoré fii nii en ville. Mm-hmm. Mm-hmm. at yeneen yoo xam ne ay bureau la ñu ngi koy commencé utiliser lu bëri quoi. Mm-hmm. léegi ci sa ci sa wàllu liggéey euh, est-ce que yow yaa ngi ci génn comme ni ñuy waxee. et que naka ngeen organiser woo. parce que defe naa da nga ko nekk ak ay nit di liggéey. si si euh, au fait ñu ngi si benn entreprise boo xam ne OG entreprise la tudd ñi euh, ngi lépp la ñuy def dañuy def dañuy dañuy travailler sous forme de contrat. Mhm. dañuy travailler sous forme de particulier ak tamit ay appel d'offre yoo xam ne ñu ngi siy saisir suñuy change quoi yàlla mhm. baax na. léegi mm, dañuy ñëw dañuy li liggéey dañuy def groupe. Mhm. dañuy def euh, maintenance euh, mhm. climatisation. Mhm. dañuy def mais euh, est-ce que est-ce que yow côté li nga xamante ne yaa ngi ci liggéey mbaa yéen a ngi def attention parce que ay wàllu électricité ak lumière yaakaar naa ne. am na daal noo war a mën a doxalee. et loolu c'est important parce que ñi ñuy seetaan bëgg vraiment roy ci sunu référence bi. foofu loolu tamit dafa am yoon. ñu ngi ciy ñu ngi ñu ciy bàyyi xel bu baax parce que sànq rek sànq suba rek ñu ngi woo ñu ngi ñu ngi déggante mais daañu doon nekkoon ci benn projet boo xam ne ñu ngi ko tuddee maison intelligente maison intelligente ben comme ben appareil la bo xamné ñu ñokoy ñoo fi ni mhm. euh appareil bi tout est lépp technologie la ben carte bo xamné ñu ñokoy programmer fi mhm. suñ ko programmer euh, suñu suñu boss euh, monsieur Diagne moy suñu ingénieur quoi mo ñu mhm. jital ñun ñep suñu togué ñu né ñu carte bi li at li at lii la wara protéger comme ben heure bi amna circuit yo xamné duñu soxla duñu soxla courant. circuit yo dañ leen di éliminer ben heure bi. circuit yi kay soxla ñu bàyyi na courant dina assurer suñu sécurité te en plus tamit dina assurer bien wu matériel yi euh, comme. comme Sénégal am na loo xam dañoo ko tàmmee comme euh, comme fu incendie am rek ñaan ñu ko yàlla ñu ne non électricité bi wala hein. mais mais mais yéen mm. ci yéen est-ce que am na ku ci dem bitim réew jàng parce que xam-xam yooyu mm. euh, même sax boo xoolee YouTube da nga gis benn système boo xam ne téléphone la da mm. ngay bës par exemple bu fekkee xale yi tëdd nañ da ngay bës télé télé yi ci kër gi yëpp ñooy fayandoo c'est-à-dire mais est-ce que boobu ngeen bëgg indiwaat mm-hmm. te loolu dafa laaj ay recherches yu xóotu xóot waaw laaj na ay recherches yu xóot xóot mais loolu lépp noonu ci maison ñu mi ngi si projet bi maison intelligente bi mm-hmm. ki ñu jiitee Papis Diagne Canada la doon jàngee ingénieur la en électrotechnique Euh, ma koy nuyu de passage mais teewul tamit comme moom certes que am na loo xam ne sax idée la si mais am na loo xam tamit ñun dañuy toog développé ndoo ko parce que. Hmm. moo na xool ni kii man ingénieur laa. Hmm. ñii ay BT la ñu am ñii BEP la ñu am. mais mais xel xel ci ñëpp la nekk. gis hmm. nga euh, bu nit ñi di toog di waxtaan. en tout cas ñun RTS2 noonu la ñuy def. amul ku jiitu amul ku ñàkk jiitu. dañuy toog waxtaan les idées peuvent venir de partout. et je pense que loolu c' est c' est c' est une bonne formule. effectivement effectivement. instant yii ñu ngi si projet yi presque suñu premier carte sax installé nañ ko mais instant yii dañu ko yóbbu pour ñu defal ñu couverture bi pour ñu mën a. protection après par la protection bi pour après ñu mën a passer à la publicité ah. mais euh, carte bonnes mën naa wax ne liy protéger ñu de un contre les euh, les brûlures ah. les électrocutions protéger tamit euh, suñuy matériel ah. protéger tamit contre les risques d'incendie parce que day ànd ak ay détecteur de fumée détecteur alors Caroline gis nga vraiment liguey bi nga xamantene bi référence bi ñu déjà lan nga wax ci référence bi ak liguey bi nga xamantene bi ñong koy def et li ma gis moy c'est très bien structuré

tamit ba moné kon xale mou commencé def loolu mhm. et puis lou mou war légui que dafay def attention aussi ci sécurité etc mhm. ça c'est primordial mhm. et vraiment euh, je félicite hein bravo <laughs> très très bien <laughs> euh, peut-être que peut-être que ça me ça me dit lu mu ci lu mu ci xam nga peut-être référence tax nous que gën di di soñ ñu indi fi amul mak amul xale amul amul mais dañuy bëgg euh, jamono bi ñu nek xam nga ñu ngi joggé ci 2018 dem 2019 ñep xam nañ li am donc mbumbaay C'est très bi mhm. ci ñoo micro mhm. ci dinañ dem mhm. micro bi lu ndaw c'est-à-dire di ci mbir mi demul parce que carte bi ñuy wax c'est c'est très important xam nga carte bi tamit li tax tamit mu gëna comme ni nga waxé kër dafa important. ñëpp di tok di très dirigeant daf ko très nopp donc très tamit ñu ngi xalaat yi nga est-ce que xala nga d'ici peu de temps dem ci xalé yi mm. ne leen kat prise kenn du ko loxo wala ngeen def ay atelier sensibilisation effectivement wooteleeg radio yi mm-hmm. liggéey bi ngeen gën ko fësal wax né lampe yi baxna na ngeen defee ko ni parce que mm. dinañ gis publicité mais dina am yoo xam c'est mensonger te ñu xam buñ ban lañ ci jël ok euh, loolu noonu ñu gëmoon naa sax léegi sax parce que nous ngi actuellement. Ah. <laughs> parce que euh, dañoo comme au euh, Sénégal courant bi ñu utilisé. Mm mm-hmm. dafa dangereuse parce que dafa fort 220. 220 mm-hmm. presque ñi koy 220 voltage nous utilisé am na 220 à 240. Mm-hmm. soo en états unis 110, la ñuy 110 ouais. 110 même fréquence même là, mais tamit am na loo xam da ciy am. parce que danger bi weesuwul suñu installation baaxul de un marché bi. Euh, comme câble électrique yi ñuy utiliser dafa bëri ay chinois. Mhm. dafa bëri ay chinois appareillage chinois yi da ciy ëpp. surtout si côté éclairage dafa bëri nañ wax ne dafa bëri yoo xam ne wul dañuy ban dañuy bañ problème voilà parce que ñun chinois lañ koy wax. wa <laughs> wa mais buñ wax bul tudd tur bi waxal noonu rek. quatre ah, contrefaçon quoi lu bëri contrefaçon. Ah. Euh, léegi comme ñu ngi waaj ay campagne yo xamné de sensibilisation lay doon mm. pour ñu gëna mëna xam norme de sécurité yi. ak mm. nan nan nga war mëna utiliser. prise prise de courant wala nan nga wara mëna utiliser sa coffret électrique mais loolu noonu yëpp ça dépend tamit euh, comme ñu bëgg nañ defaat tamit benn formation boo xam ne comme formation kii lay doon quoi pour sécurité lay doon. sécurité électrique genre oui oui balaa ñuy euh, ngay xuus. voilà am parce que man li ma gëm mooy euh, gis nga liggéey boo ci nekkee. Mhm. da ngay fexe nga xarañ si. dëgg la booy def liggéey itam ngay tabax sa kër wala mhm. nga am chantier wala looy munti def mhm. jox ko ki nga xam ne moo ko yelloon maanaam jox ko professionnel bi nga xam ne moom moo ko jàng xam ko mën ko mhm. bu ko defee dina la éviter yu bëri muy rejoindre côté sécurité bi nga xam ne moom sànq mu ngi ko doon soulever mais leneen tamit daf ma si intéressé mooy li mu doon wax sànq ak lumière bi euh, ñoom dinañ ko utiliser ba nga xamante ne ci biir décoration peut-être euh, buñ ko defee di nga yaakaar ne sax œuvre d'art la wala projection dara muy euh, peut-être ñu mën ko méngale ak li ñu naan mapping bu ñu fàttalikoo biennale bi passé bu daw mhm. euh, jot nañ ko fi def ak établissement yu fi lu sociale bi nek suñu wet ak euh, monument ay édifices yo xamantene je nañ ko def mhm. euh, lolu nak buñ ko mhm. rek lumière ci dara ndax tax nga tax nga xam say pour avancer <laughs> Euh, li mu wax am na solo parce que tamit éclairage dafa dafa dépassé foo xam ne dañuy ñëw rek taal. Mhm. pour juste pour xool li ñuy seet wala kii mais am na loo xam ne tamit da koy jouer ci kii quoi. ci nit parce que tamit sa espace bi nga nek wala yow fi nga dëkk muy bureau bi nga nek wala fi nga dëkk mm-hmm. Mm-hmm. ki la fa fekk sa selon espace numérique noonu la mëna considérer quoi moo tax war nañ ci mëna gëna gën xolaat matériel yi ñu utiliser ak nan la wara mëna procéder pour am lo xam mo moo doon li gën quoi comme très très bien en tout mm-hmm. cas euh, on va terminer mais nak euh, ñu d'accord ci né euh, ki gëna mëna mën lumière de toutes les façons le plus grand créateur c'est qui c'est God, tout simplement. Mmh. Ouais. <laughs> Il n'y a, pas mieux. Il <laughs> y a pas mieux que la lumière du jour. <laughs> gis nga bala koo xam bala koo xam nawet jot. Mm. ba nga gis rainbow bi. Euh, arc en donc tu vas savoir que donc nit ñi foofu rek la ñuy tibbee. Mm. donc may jeexal ci di la remercier. Mm. ci ci ci ñëw bi mais aussi tamit di la wax ni ligue bi du yam fi da koy continuer. Euh, c' est comme un système Messi. et Cristiano Ronaldo Messi dafa am don mais Chris dafa am don plus travail. donc sa don bi na nga gëm ni liggéey rek moo koy fësal. te looloo tax ñuy gën a tam tam ci indi ñu mel ni yow bu fekkee am na ay kàddu yoo bëgg sànni laata mm-hmm. ngay tëj mm, ni may tëjee xanaa mooy di gërëm mm-hmm. plus particulièrement toi quoi parce que tamit yombul nga jël koo xam ne booy la mais teewul tamit invitation dama ci content trop quoi merci di remercier tamit ni ci japp mm-hmm. remercier sama yaay plus particulièrement sama grand frère quoi sama papa sax oh, ça c'est mignon en tout cas ñi ngi lay euh, ñaanal parce que ça su ne bu ñu amé ay ndaw yu nga dañ fi dañ di ñaanal parce que mm-hmm. nañ ndaw bu nekké ci mbir mm-hmm. boko ñaanalé rek mu dem ci kanam euh, la carte bu nga bi ngi li ngay liggéey euh, di la ci bu parce que ni nga doré machallah boko continuer di nga entrepreneur bu mag bu nga xamanteni ne bi danañ ko dégg non seulement ci Sénégal mm. waaye ci àddina bi yëpp yal na yàlla defal la jàmm merci beaucoup euh, Malcolm euh, toujours un plaisir en tout cas di feggoo ak yow euh, mbokk yi ñu daal di dem régie dellu siwaat nag recevoir suñu xarit Moustapha Sadio ci tàggat yaram nag euh, mbokk yi waxon nañ leen ko ne nañ leen ci mois de mars lañu nek te RTS2 dafa fas sa saa su ne di sargal ay jigéen ci bi loolu nak euh, ci walu sport danañu ñëw ci façon sport bi euh, duñu def rek lu dul dalal jamm ki nga xamante mom moy Mustafa Sadio sa su ne mooy ñëw ak ñun ci li nga xamante bi mom moy tagat yaram Mustafa ma ngi lay nuyu c'est toujours un énorme plaisir pour nous en tout cas de te recevoir te nak xam nga luma ci neex moy que da nga comprendre ne que Sénégal amul rek fédération de football ak basket ak natation ak équitation c'est-à-dire buñ ko limé ay euh, peut-être mun na nekk ñeent fukk yu nga xamante bo war nañ ko mëna a fësal. Hmm. te RTS 2 mu ngi dox ñu ngi lay nuyu. maa lay fay yaa xam. Hmm. di nuyu sama consoeur maa mëna a. di hmm. nuyu suñuy invité. Euh, di dellu juste di wax ni ki concept émission tam tam rek lay suivre. émission tam tam dafa doon émission boo xam day distingué wu. contrairement aux autres émissions. day distingué surtout les disciplines les plus les moins.

moom xam naa ne mënul li <laughs> naan roller man mënuma man it aana mi jàkkaarloog man mënul <laughs> mais nag ñaar ñi ñi dendal hmm. kenn ki moom mi ngi koy def mais keneen ki dañ koy dalal jàmm mbokk yi muy euh, madame Awa Nar Fall euh, ñi ngi ko waxee sànq plusieurs casquettes waaye tey li hmm. ko fi tax a toog mooy présidente fédération sénégalaise bu roller hmm. man nag loolu jaaxal na ma torop mais laata ñu dugg ci loolu maa ngi lay nuyu di dalal jàmm en tout cas c'est un plaisir ñu feggoog yow fii ci plateau maa ngi lay fay yaa xam mhm. di leen nuyu yéen ñëpp mhm. di leen ziar di nuyu sénégalais yëpp nga xamante ni ñooy suñuy supporters parce que defe naa euh, tey plateau bi monsieur Sadio waru fi woon toog ah, loolu rek laay déploré <laughs> mais nag Pape ndax mois de mars bi war ñu xajal kenn ci Clara donc nañ ko jéem a pousse nañ ñu def émission bi en tout cas ñu ngi lay dalal jàmm euh, euh, Moustapha xam nga nag mm-hmm. question yi day ñëw mais comme sa sa sa chronique la dama lay bàyyi nga dem mais daal rôleur dal doyna war mu nek présidente bi ça veut dire que. Hmm. lolu ci biir lolu mom dal ma nga ci doon yeungatu wala ma nga ci yeungatu ba léegi. mu ngi ci yeungatu ba léegi. mu ngi ci dan yeungatu bi ken intéressé wutoon disons ci sport bi. parce que c'est la première femme euh, présidente de fédération au Sénégal. Hmm. muy lo xamantene da dama bëggoon ñu fësal ko it. waaw ñu dem xol élément ñu xol élément bu wone surtout liggéeyam bu mu tambalé hmm. lu muy béy moy ak euh, raayo yu ay ay xaléum indalé Sénégal. très très bien mbokk yi ñu dem xool dellu si waat maa ngi commencé roller depuis fin 2012 Li doon luñu bété ndax donu luñu njëkk ñun yag nañ euh, di gagné ay compétition mais au niveau de l'Afrique la fii tay la yalla yàlla euh, opportunité pour ñu mëna a génn Euh, dem ba Chine pour mun a représenter Sénégal ci cadre euh, championnat du monde doonul loo xam ne daf ñu bett ndax depuis 2013 ñu ngi koy wàcc nekkul nekkul loo xam ne dañoo xëy xëy rek def ko dañ ko yàgg a travailler xëy mu aboutir benn jour. li ma motivé bëri na euh, commencé commencement ci fu ñuy entraîner. su ma xalaatee fu ñuy entraîner fu ñu jaar suñu jaar-jaar ak li ñu daj lu métti yëpp ñu war ko mën a matal ci benn jour rek loolu da ngay daal di motiver ak boo xalaatee ña nga bàyyi Sénégal ñi nga xam ne rouleur bi ci yow lañ yaakaar demoon nañ ba sept personnes lañ ñëpp compétiroon nañ ba ñëpp lañ gañe woon maanaam mu desoon deux man ak kenn ku jigéen ñun ñaar rek a desoon pression bi instant boobu noonu day augmenté mu leer na yow yaa wara a sauver l'honneur pour médaille dugg sa dëkk loolu dafa nekkoon source de boo xam ne moo ñu permettre ñu mën a gagné compétition bi. what's on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine. parents yi dañoo yaakaar ni rouleur discipline bu dangereux la rouleur ay risque la non même pas Euh, Bo amé sa dom mu bëgg koy jël am licence am assurance Nous euh, koy une protection complet di bañ tamit di ci ndax loolu dañ koy di accrocher ci voiture le sport noble le sport d'église la du pour ak ak yi Sénégal effectif avons manqué effectif euh, boo demee championnat du monde pays ay personnes la ñu ay et quelques Sénégal 7 personnes équipe amul ragal amul ragal RTS 2 amul ragal amul ragal kon euh, nag dañuy kontaan Moustapha parce que euh, tey la nga ñu indil kontaan nañ ci trop ba pare faaw ñu fësal ñi nga xamante ne bii mais ñu ngi jël ay raaya représenté le Sénégal mhm. gis nañ fi Dame Fall bi mhm. nga xamante ne bii ci coupe du monde bi la waaye nag benn jigéen boo xamante ne bii macha allah Awa Balde nekk recours. c'est clair ça c'est important. c'est clair dafa doon loo xamante ne peut-être am na ñu mu bett ñoo xamante ne ñu di suivre un petit peu évolution sport bi ni mais xam mhm. naa ne bettul Awa Fall. Mhm. Mhm. mi nga xamante ne mu ngi ciy yëngu depuis très longtemps. Dame Fall nag euh, gagné na ci góor ñi. Euh, ci discipline bu ñu naan free jump. c'est ça. exactement mooy mooy lan free jump. free jump mooy saut en hauteur. exactement saut en hauteur avec une haie une barre. moom 1 mètre 58 nag la tëb. mais bu may gën a fësal. Bah, nous sommes au mois de mars hein, tu es d'accord déjà et en plus. Euh, sportivement parlant parce que nous mhm. dafa battre record du monde mhm. très bien dafa battre le record du monde ci ci discipline mhm. donc nous xam muy loo xamante Nous nit sax commencé à wax que le Sénégal une référence dans le domaine free jump très très bien dafa bëree nag euh, ay ay ay ay catégorie de de saut ci ci mm-hmm. waaw léegi nag euh, Awa il faut nga ñëw ñun ci li nga xamante ne bii mooy roller bi ngay suqali que sànq daam mi ngi koy wax soxla ngeen effectif mais nag Sénégal mi ngi ci wéy di participer ci ay événements yu nga xamante ne mi ngi am ci àddina bi yëpp parce que dañu ko cee ràññee muy ci góor ñi ak ci jigéen ñi. Euh, yaa xam fi may doore mooy xam naa xamu leen ni. Rouleur d'Ouguna Jeux Olympiques. Euh, le Sénégal doit être représenté à Tokyo 2020. Wow seetuñu ko mais defe naa tuuti rek may leen ñu tuuti presse bi yëpp dinañ daw parce que mm-hmm. euh, li ma waxoon ne à part Djaba. Euh, mm-hmm. ñun ñoo fi indi médaille bi nga xamante ne day duggaat ah, bah, on vous fait confiance et on vous accompagne donc euh, maa ngi liggéey ci liggéey boobu mm-hmm. bu weesoo nag rouleur dafa di euh, sport bo xamante ni dafa regrouper discipline yu bari mm-hmm. Mm-hmm. parce que coupe du monde bi y avait 10 disciplines mais présentement mm-hmm. coupe du monde bi ñuy waajal pour dem Barcelona game 12 disciplines la ndax football duguna trottinette duguna d'accord ak handball bi aussi euh, non Anne Balbi à part parce que le roll il y a une fédération internationale qui xamné ñom ñoko yor euh, ay indien lañ ñu dëkk Inde donc euh, mën naa ni 15 ans ñu ngi koy def. Mhm. mais daaw rek laa ñaari at yi laa dem ak xale yi bi ma demee première année bi dem nañ ba quart de finale. Mhm. daaw ñu dem euh, ba quatrième place mhm. les filles ont remporté la quatrième place te dafa am nu mu parce que dañ di bees ci discipline bi mais defe naa ñu ngi paré ni parce que ma ngi waaj dem congrès semaine prochaine mhm. pour dugg ci instance bi gëna mag ci mhm. euh, handball bi muy euh, roll ball mhm. bu ko weesoo football bi mën ni euh, fédération internationale la bok parce que je suis la vice-présidente de la confédération africaine de footings le footings c'est le football parce que un roller, euh, tous les noms sont en anglais. Mm-hmm. D'accord. Donc, euh, euh, quand on parle de roller, on parle de culture urbaine, on mm-hmm. parle de hip-hop. Oui. effectivement mais li ma ci Sénégal en ce moment pays africain y'a ñu ngi daw di depuis 1824. Mm-hmm. Afrique must ben jël ben raaya ci roller. Goulet Sénégal champion du monde. avec deux médailles d'or et record battu. très très bien alors. Moustapha nous mhm. euh, avons ci euh, vraiment reportage ah. euh, parce que as mbokk roller mm. vraiment discipline bu mhm. sénégalais yi ngi élément bi euh, off la. waaw un petit peu mhm. en pleine action parce que bàyyilu ko coach casquette la comme ni <laughs> découvrir un petit peu football roller et également handball ak yoy mhm. non. mais xam lu ma nga mhm. bal ma la tay continuer fay sol talon. <laughs> ak ci <laughs> cérémonie. ko justement dama ñu malheureusement euh, buñ ko Uh-huh. buñ ko jox noonu samedi boobu noonu dañ ko couronné waa ANPS mooy pour journée 8 mars bi donc euh, jox ko pour service rendu benn trophée pour honorer ko pour liggéey bu muy def ci ci roller bi donc euh, ñoom sax ñu ngi waajal yéen a ngi waajal je pense benn événement le 17 uh-huh. ci mbirum roller bi waaw euh, le 17 mars bi uh-huh. dama bëgg Sénégal yi yëpp ñëw biir stade Ibamar seetaan Mhm. Euh, parce que moi phase nationale bi nga xam région yi dañuy mhm. ñëw mhm. ak Dakar ak banlieue ñu jongante pour xol les nouveaux euh, euh, talents les nouveaux produits qu'on doit préparer pour ñu ah. ñu bees ñi war a pour ma pare pour yóbbu ci coupe du monde bi di ñëw ndax ay wéra a ci des fële Inde donc mom lay dem pour régler ji euh, ni ñu war a dëkkoo ak euh, nu ñu war a toogeek yëpp bu ma ñëwee lekk euh, dinañ ci duggaat dinaa waaw man kontaan naa ci li nga wax léegi parce que yemalewu leen ko Dakar donc euh, région yi étendre nañ ko ci région yi mën naa la wax ni am na juróom fukk ak ñett mhm. club biir Sénégal Donc, Très euh, bien. Olaf Monumalawakhaïma, mais nous sommes 2500 licenciés mhm. de patineurs. Donc, 53 clubs ouais. Non. 33. 33 clubs de roller. Oui, Fanwer Agnat, parce que nous avons beaucoup Agnat. Nous avons beaucoup Fanwer Agnat. Agnat. Très, très bien. Bir Sénégal. Oui, maintenant, nous avons une question. Nous avons une question. Nous avons une question. Mais nous avons quand même. Mais mhm. posez-vous, parce que mhm. moi, est-ce que vous avez fait le roller? Oui, je pratique pratiqué, mais discipliné discipliné euh, comment dirais-je Eh, professionnel bi. duguma ci mën naa takk samay patin doxantu ci mbedd bi. Eh, def lu ma neex daal. waaw léegi laata ñuy ñëwaat tak ak ak Mustafa mm. euh, parce mm. que suñu doom yi dañuy faral di bëgg ay roller ñun daal dinañ jënd dinañ jënd protection yi. Mm-hmm. jënd casque bi ak yoy legui lan ngay wax parents yi nga xamante bi seen doom yi am nañ ay roller mais ñu ci ñi nga xamante bi ay professionnel pour ñu jappalé len mm-hmm. parents yi dama leen ni ñaax ya xam parce que fi mu nekk euh, dama doon ngagne euh, presse sénégalaise mais. tay bigna parce que li tax ma leen doon ŋàññi nañ ni football ak làmb lekk am Sénégal mhm. or lolu lek amu fi mhm. ndax tay ji bu ngeen setlo la nouvelle génération képp ku ci juddu da ngay wax yaay jëndal ma patin doon yaay jëndal ma bal amatul xewi na <laughs> xewi na te maa ngi leen di lancer défi ñoom waa football parce que li ma bëgg liggéey bu sottee mhm. defe naa doo déggati football non nañu dégg football yow tamit doo dégg parce que euh, dama ni Sénégal xëy na euh, yaakaar ngeen jël yi ndam indi mhm. médaille yi ñu indi indi mhm. coupe yi nga xam ne moom la rouleur indi mais des na daal ndax euh, nañu ñëw laajte si gaynde gu jigéen gi. Mhm. Mhm. bokk ci liggéeyam. Mhm. nan la ko defee ba mën a indi. médaille d'or. Euh, buñ ko laajul rek en tout cas RTS de laaj nañ la ko moo tax ñu teg la fii parce que xam nañ ne gaynde gu mag a mag nga. Euh, léegi très rapidement parce que foog ñu jàll ci lutte bi un mot par rapport à ça parce que Caroline moom itamit dafay def rôle dafa daan def roller. oui man tamit damay def roller mais du ma def ay roller professionnel yu mel nii hein. <laughs> Euh, je pense que vraiment commencer très tôt le roller, c'est la meilleure chose. Mhm. Moi, j'ai commencé un peu tard, je me suis bien cassé la figure, mais euh, ça va. <laughs> en tout cas, je vous def rek euh, Moustapha mhm. daal di jàll ci li nga xamante ne actualité la. mooy bëre bi nga entre Sa et ak Boy mhm. dem xool dellu muy làmbu làmbu démb bi maa ngi koy wax sànq. waaw moom la ñuy gis ni ci image yi. Mhm. Euh, diggante Boy Niang. Mhm. ak euh, Sa Thiès muy derby entre Pikine ak Guédiawaye. Mhm. muy combat boobu ñëpp daan xaar nag diggante ñaari xale yoo xamante ne mën nañu wax ñu ngi ci antichambre cour de grands pour fekk ji mag ñi mu ngi noonu ñu gis image yi nag démb nag finalement. Mhm. mën naa wax ni ki la plupart euh, suñuy. amateur lutte yi am nañu mbetteel. gis euh, Boy Niang daaneel Sa Thiès jël bu leer nañ. jël bu amul benn werante. Mhm. moom nag ñu bëri seetlu ni Sa Thiès dafa xawoon na xeeb moo tax Boy Niang jël jël ndam lii te léegi nag day tijjil Boy Niang disons que univers grand grand lutteur yi. très très très bien alors euh, euh, Awa. Euh, am naa lu ndaw lu ma ci sànni. waaw parce que dans la vie faut jamais sous-estimer ton adversaire. démb li ma jàngat parce que man je suis j'étais la mm-hmm. directrice technique de l'équipe nationale du Sénégal de roller ci technique côté technique la leni wax mhm. euh nit du xeeb adversaire am mhm. du tuutil adversaire am te Boy Niang boo ko xoolee démb mhm. euh, avant bëre bi di commencer techniquement man lima ma résoudre woon ak ñi tok ci salle bi dama ni len bu gor deug joxé fitu gor nangu dor moy daan ndax euh, ci njàngat daal. loolu laa gisoon man démb. loolu moo feeñ sax. alors Caroline. <laughs> par rapport à la lutte d'hier oui, euh, je suis d'accord avec euh, ce qu'elle a dit. Hein, c'est qu'il faut, faut jamais ah, euh, sous-estimer son adversaire parce que c'est là que surprise. c'est vrai voilà très très très bien. en gros très bien. Safane ko très bien alors on, on va terminer. C'est mm-hmm. nag peut-être une dernière question suñu invité. di ah. baamtuwaat Awan madame Awa Nar présidente mm-hmm. fédération euh, sénégalaise pour roller et mm-hmm. skateboard. waaw euh, di terminer peut-être di un petit peu euh, lan mooy loo surtout parents et pour ban âge moom mooy lu gën pour dugal ci xale roller pour mën def des champions de demain. roller à amul âge ndax maa ngi ak xale yu am euh, deux ans et demi. c'est vrai trois ans. Mm-hmm. mais lépp day doon ci dàll bi ñuy sol. dafa am dàll boo xam ne comme oto la. Mm-hmm. moom ngay jël démarrer ko nga leen ni ndax ñuy dawal mm-hmm. dawaluñu dara dañuy pousse di kuru kuru kuru kuru donc deux ans et demi trois ans mën nañ commencer. ba quatre-vingt-quatre ans. D'accord, 84 ans. fédération est ce que vous avez une adresse ou numéro de téléphone. la euh, euh, fédération bi en ce moment avons une piscine olympique mhm. nationale. D'accord. C'est euh, numéro 77 648 44 35. très très bien numéro bi Jamulken, mhm. mais je fais appel aux parents. Mhm. nañu jël enfants yóbbu ci club moo gën ñu bàyyi leen ci biir kër yi mhm. ak ci mbedd mi mhm. ñuy daw ndax toujours ñooñu ñooy danger bi parce que boo di dégâts yi boo nekkee ci club da ngay am licence fédérale mhm. dangay am assurance donc foofu aar nañ la ba paré mais ya xam mais ñu ñuy éviter aussi tali parce que léeg-léeg damay tiit man torop la tamay tëj. tali bi mu ngi euh, wacc touti touti ndax ma ngi ci ak euh, le préfet de Dakar parce que xalé li ñi def ci tali di jappando ci auto yi. c'est c'est voilà da ngay da ngay ragal le ministre de l'intérieur et et le préfet de Dakar parce que foog ñu réglementer aussi. absolument euh, c'est important très très bien mais ya xam tay dama bëgg nga def appel. Mm-hmm. au président de la République du Sénégal. Mm-hmm. depuis ñu indi médaille d'or yi ak record battu bi. Mm-hmm. defe naa ñu ngi toog di xaar très très bien en tout cas euh, wax nga ko fi nga ko war a parce que yaa ngi nag ci groupe RTS en tout cas autorité yi ñoom ñuy certainement dinañ la dégg xam naa ne euh, dinañu euh, joko ak yéen en tout cas ñi ngi lay remercier mbokk yi may fatali, suñu invité madame Awa Nar présidente fédération sénégalaise bu roller ak skateboard ñi ngi lay sante di la gërëm bonne continuation et surtout beaucoup beaucoup de succès waaye tamit di remercier suñu benen invité bi diko sante momi tamit madame Caroline Gay, di artiste plasticienne koy wax ñël ben nga euh, ñu né astrophysicienne la def euh, ci formation ñoo ngi lay gëreum di la sant bu baax baax ça a été euh, aussi un plaisir de te recevoir. oui merci maman aussi c'était vraiment fantastique d'être ici je vous remercie merci beaucoup may gërëm di sant bu baax a baax sama xarit euh, Maymouna madame Gay, mhm. euh, di la jox rendez-vous incha samedi pour euh, le grand tam-tam waaw samedi pour le grand tam-tam mais laata loolu rek nga may ma masargal la suñu jigéen bi invité bi nga xam ne mag la si man mhm. ndax ñoo bokk dëkk comme ni mhm. ma koy waxee ak Aïcha Touré suñu waa koñ ci mois de mars bi kon loolu mbégte lay doon si ñun ñu koy gën a encouragé mu gën a continuer indi yeneen ndam ndam li tamit continuer ak RTSD bi nga xamante ne mooy la chaîne encore plus proche de vous merci beaucoup euh, May euh, Moustapha euh, ñoo ngi lay gërëm di la sant sa su ne. Mm. mbégte rek la ñuy am ci vraiment tagal yaram bi nga xamante bi mm. yaa ngi ko jëmale ci discipline yépp merci beaucoup. ça reste toujours un plaisir di yàkkamti chaque lundi di mm-hmm. jël. merci beaucoup Moustapha Mbok yi yéen tamit ma ngi leen di gërëm di leen sant bu baax baax di gërëm toutes les équipes techniques yi nga xamante bi mm-hmm. sa su ne ñoy ànd ak ñun di liggéey waaye tay nak di gërëm Marie Gueye MG Couture nga xamante bi tay mo jaar ci sañse bi mbok yi di leen jox rendez-vous incha suba pour benen émission tam tam bonne suite des programmes sur la RTS 2 au revoir.